xarit ñoo ngi lay dalal ci émission bi tudd yeete ànd ci ak solivo solivo nag amoon benn formation bu mu doon def ci village u Xatali dajale woon producteurs yu nekkoon ci commune de Fass région de Saint-Louis formation boobu nag mi ngi ko defoon ak distributeur bi naan Mounirou Seck te mu nekk Paal di produit phytosanitaire formation boobu tudd formation fine maanaam formation insecticide nématicide ak fongicide doon lu am solo lool am njëriñ lool ci baykat yi nga xam dañ nekk ci suufu joor yi xam ngeen ne at yu mujj yi zone yi nga xam ne dañ nekk autour de Pâle ñu ngi soogam di dugg bu baax ci maraîchage bi lu ko waral mooy ñu ci bari léegi ci lañuy gën a am accès ci forage yi am ndox mu doy mi nga xam ne moo leen di dimbale pour ñu def seen maraîchage looloo waroon nag Solivo jaar fa di def ay formation ak recyclage ba nga xam ne clients yi ak producteurs yi dinañ gën a xam nan la jëfandikoo produit bu nekk lu mu nangu ak lu muy bañ lu muy ak lu muy jëriñ. formation boobu nag ànd nañ ci ak conseil agricole bu ANCAR monsieur Guèye ànd ci ak monsieur Ba bu SDDR bu saint bi ànd ci ak Mass Agri mbaykat yi nag rafetlu nañu formation boobu ndax gis nañ ni Soulevo ngi ngi def effort yu am importance ci début campagne pour ñëw wan leen produit yi nga xam ne moo leen mën a accompagner suñuy préparer seen tool yi ak suñ ci duggee mais defaat beneen formation ci presque fin campagne bi pour wan leen li nga xam ne rëccoon na leen ak ñi nga xam ne ñëwuñu woon ñu mën a profiter ci formation yooyu Solivo tamit demaatoon na commune de Diama fekk fa musa uldu Ba mi nga xam ne mooy seen distributeur foofu ñu waxtaanee ak producteurs yi ay produits yu nga xam ne Solivo mu ngi koy def ñu ci bare daan ko utiliser wante am yoo xam ni leeru leen woon. formation boobu mi ngi durul 24 mai amoon ca mairie Diama. conseil agricole monsieur Sow bu Sayet Ndiaye ñëwoon na fa. moom tamit fekkee formation bi. ñii nag yàgg nañ ci maraîchage yàgg liggéey lool ci maraîchage wante dafa am yu bare ci produit yoo xam ne daf leen doon rëcc ci nan lañ koy jëfandikoo lu mu nangu lu mu bañ looloo waraloon nag formation bi doon formation boo xam ni amoon na niveau lool ndax produit yi nga xam dañ koy liggéey ci maraîchage bi waxtaanee nañ ko waxtaanee tamit produit ceeb yi. surtout waxtaanee produit yi bees yi nga xam ni Solivo bëgg na ko indi at yi ñu jëm ngir gën a yombal liggéey bi ci toolu ceeb bi. njëriñal daje yi nag am na lool solo ci distributeurs yi ndax euh, ñu ci bare parfois dinañ am ay producteurs yoo xam ni téléphone rek la ñuy ak ñoom ñu sore ñu wante daje yi ñoom ñooy gëna a diggante yi diggante fournisseur bi distributeur bi producteur bi. ba nga xam ni buukulu filière bi day yomb dajale. Etienne Dogbu Solivo nag nga xam ne mooy seen directeur commercial fii ci Saint-Louis leeral la ni bëgg na defaat yeneen formation jëgleel ko paysan yu nekk ci yeneen zone yu fasanti li leen leen indi loon jërë